stade bi avancé na bu baax dafa naa ni ñun ñëpp gis nañu ne bi posé nañ ko ak fonctionnel commune bi 2500 places la nee naa d'ailleurs entraîneur bi commune bi a mag ba de Thiès ndax 2500 quand même donc il faut le faire et je pense que Mbacké également na li ci des rek ci euh, mën naa ni chantier bi mooy finition ma solution yi gouverneur bi jël libre échange bi waa deux mois na parrainage bi mu des pour finaliser donc ñaari pause yi en menuisier bi plomberie bi BCI yi après vraiment BCR yi beneen bi mooy les deux plateaux un plateau pour Mbacké un autre plateau yooyu moo ci des gis ngeen ne pour comment ça s'appelle électricité bi ak éclairage bi on passe à une banquette pour les jeunes bénéficier d'un éclairage sportif en LED alors que yaa ngi passé ci bi dugal nañ ko ci donc pour dire simplement ñu doon wax su chantier bi pare le stade de Bathie ci fonctionnel et les mën naa ne modal donc Sénégal incha allah notre collègue Saloba nekk meilleur Mbacké mais également sant ko ci délégation li nga xam ne mooy électricité bi mu mën a disponible ci loolu mooy ay collaboration ak subsidiarité entre l'État et l'entreprise joué na rôle bu baax ñu félicité mais également ñu mën a témoigner vraiment les populations mais Kaloba ne cesse première de nous interpeller intelligence wala a été très sensible au sort de la jeune combattante. Son chantier soit livré dans les délais. waa kanamu waa Mbacke ñu xam ni seen maire ministre la fonction publique rek Gallo nekk gouvernement bi yëpp yàlla suturaal ñu yenn saa yi mën ak moom ñooy toog en conseil des ministres du cessé chaque conseil document yi may indi président régulièrement dama koy wan pour xam fi ñu doon mais également ñaax na du benn du ñaar pour ñu ñëw fii ñu bàyyi seen de la des sports mooy jeunesse bi ak dëkk bi dañ leen war a taxawal naa ni ay stade dans am na seize projets yoo xam man fekk naa ko yoo xam ne commencé na fukki projet ak juróom benn topp na cinquante millions pour defal jeunesse bi na ni travail bi mën naa liggéey bi entreprise bi jël na engagement pour ñaari weer dina pare travail yëpp jiite la jeunesse stade bi nga xam ne dina nekk exclusif Sénégal ndax naa ni à part euh, Léopold Sédar Senghor ak Stade Abdoulaye Wade dina ci ànd ko mën naa ni sax stade bu bari stade bu Thiès ak Dior ndax mën naa ni capacité de tribune am deux mille cinq cent places te stade la Dior ñu gën ñu dire simplement ak yeneen communauté yi ak système d'éclairage bi ngeen gis ni mu moderne ak mode lettre bi ak innovation yi ci nekk gën a nekk stade yi gën a fonctionné ci Sénégal loolu dafa naan la boo ko yéene waa Mbacke defal leen ko defal waa Mbacke way les normes internationales ni ci tribune bi mais également ci pelouse bi loolu la ñu respecté ndax tey de stade loolu la ci dugal loolu la respecté a di yokk ndax nit ki soo nekk dara da ngay gën toujours di xool lan ngay gën a améliorer ñu renforcer mu gën a baax waaw stade de Bambey yi mën naa ne mu ngi avancer bu baax gën a seetlu ci am nga libéré nañ ko donc li ci des bëri na stade de Diourbel xam nga dafa bokk programme bi nga xam ni gouvernement du Sénégal dafa ci seen gouvernement Chine donc 40 milliards yoo xam ne dañ koy dugal 20 milliards yi dañ koy dugal dañ koy dugal ne leen vingt milliards yi Diourbel dafa bokk ci bénéficier bi Diourbel la Kaolack fan yii di ñëw dañ ñëw tàmbali liggéey bi Diourbel dañ doon xaar nawetaan yi pare léegi ñuy def tamit dañ koy waxtaan ak les acteurs mooy ñi nga xam ne ñoo yor ndóol bi ak ñi nga xam ne ñooy pratiquer bénéficier wu ci infrastructure léegi ñun nag lépp yem si commencé travaux de rénovation donc stade Diourbel. waaw dañuy sax bu baax a baax relation pour, pour la patience. Monsieur particulièrement, qui est tout à fait conscient de l'urgence qui se cache euh, à la réduction des travaux. Les différents mouvements et les stabilisations au moins nekk yitte yitte xale yi surtout te it jàpp naa ne président président la présidente mooy nekk yitte ndax it saa su ne day ñaax ministre des sports ci stade bu Mbacké ak yeneen stade yi. ñu gaaw ñu gaaw ko finaliser dañuy jàpp ne ministre des sports mu jël ay jéego am solo ndax gaawaayam fii rek firnde la ci yéene bi am pour que mu gaaw a pare également ñu gën a réussir entreprise bi parce que jëf def na ay jéego pour que stade bi mu am d' abord la tribune ci am deux mille cinq cent projecteur yi jedd la pelouse bi pelouse bu baax la mën naa def quinze ans ñëw vingt ans au moins. si si elle est bien entourée donc véritablement jàpp na daal tey ñu ngi am yaakaar ne dans les prochains mois stade bi dina gaaw pare dina inauguré pour ñu mën a def la gestion waaw gestion bi nag bu ci biir naa commencé na kenn xaar ba stade bi nga waxoon dañ koy dañ koy jëntee pour pour gérer loolu am nañ ci ay ay gis-gis am na ci également xalaat waaw xalaat ko ñu waxtaan ci ak waa conseil municipal pour en tout cas pour leur proposer le schéma que dama ko leneen li mooy ci wàllu ci wàllu courant bi dinañ lañ matukaay yëpp ak waa Sénélec en relation avec entreprise bi dinañ fexe ba Sénélec ba courant bi ñëw boo defee ñu mën a def test test projecteur test tout tout ce qui est électricité pour que mu nekk campagne ersten Semester.